présent maanaam wuti woon na waaye bokk na fi ñi gënoon a fes ci bis boobu te loolu daa am lu ko indi dinañ ci dikk <laughs> ajaratu kon euh, ci kàddu mag ñi waaw na cee tënk rek waxtaan ci incha allah Omar sa yëfu yi bàyyi ko euh. journaliste dañoo bari li ñuy wax dañoo am lu bari lu ñuy wax <laughs> tay de war nañ wàññi wax ci kon ay ca mu ngi noonu sony bu Diop euh, maa ngi lay nuyu di la ziar namoon nañu la xaw nañ laa gëj a gis maa ngi lay fay Adja waa damaa woon ci farata waaw damaa demoon Saalum mm-hmm. waxtu wi démb maa ngi woon ca daara ja mm-hmm. dañoo daje woon doon ñaanal waaw ma nga fa mu njaay jaara ma nga fa Saalum itamit fu ma dem ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj di nuyu. waxtu yu dem maa ngi fa. Mm-hmm. jàng nañ fa lu toll ci ñaar fukki kaamil ak benn. macha allah ca daara ja jël yool bi yéen ak sëñ màggat ak mboolem way dawlu yoo xam ne rek jiitu ji nañ. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di nuyu xalifa sëñ màggat di sëriñ Makhtar faal ba nekk foofu foofule ak sëriñ Yoroog ñu ne ca daara ja. Mm-hmm. maa ngi lay ziar yow tam Adja di la ñaanal yàlla. Eh, di nuyu xarit sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Alaaji Sa Njóogu Mbeng ak futur maire de Kër Massar sëriñ Baara woon ci caay léegi nag changé na léegi nag macha allah mi ngi ñëw ci ñun ndax fekk si nañu te man gis naa ne yëf jàpp na ko kon boog bravo Serigne Bara. <laughs> kii mooy kii ki ki koy waajal buy génn. ah dafa déglu météo xam ne dafa xaw a tàng. météo nee na nan wàññi yu tàng yi. mu teg grand boobu canicule bi mën na jur feebar ci nit. Cheikh Ba daa ñëwee jënd naar loolu. <laughs> maa ngi lay nuyu yow it di la ziar. Mm, Adja ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow. di dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko mm. ñaanal mu yàgg fi ànd ak mu ko waaye du nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacke eh, eh. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér <laughs> amiin yaa rabbi di nuyu sëriñ Xaadim ne ci kër gaa njaboot ko yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axla mm-hmm. di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu leen di nuyu nuyu nañ na Dieynaba faal kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm mm-hmm. di nuyu Omar Bun Xataab macha allah di am ci moom te ak kontaante di nuyu Cheikh Baara bi nga mm-hmm. xamante ni ah. bu nee na ñëw na ci li nga xam ni moom la ñuy wax pantalon yi waaw ah, loolu di lu am solo macha allah euh, gis nga euh, bi nga xamante ni bi ñëw na ci lii rek moo tax gis nga affaire yi boo leen boo tegee équilibre ci balance bi rek doomu kii quoi xam nga Cheikh Bara bu solee grand am déficit quoi Baye Mbaye day sol kii bu Baye Mbaye solee gis nga caayee Baye Mbaye caaye ji rek boo xoolee caayee Baye Mbaye bi rek Cheikh Bara mën na cee ñaw lu ñeenti grand xam xam naa moo tax gis nga ko. Sadio Gu bàyyi tool ah, nga gis ne seen baara bu tëdd. yow yaay mujj waaw waaw waaw décortiquer ko. non non xam nga yii ñun ñoo ko ci woo. c'est pas du bleu sur du bleu c'est du bleu sur du ko ci woo. ko ci woo ne ko Cheikh Bara il faut. Euh, nga diversifier un ah d'accord kii. Hmm. comprendre nga bàyyi kon léegi yéen ay conseils vestimentaires non ah, parce que boo nekkee ak ay nit. Ah. il faut que jëm leen loolu. roy moo mu roy tey gros fi di nuyu ngeen déglu leen. tey yi bu. son bu euh, waaw di wëlbatiku di ñaanal kilifa googu nga xamante ni bii moom lañ demoon. Ah. nga xamante ni bii sunu borom dolli ay leeram. Euh, di wax ni euh, ndongo daara yu bari war nañu inspiré wu ci loolu. di delluwaat ca seen ña nga xam ni ñoo leen jàngal man mii amoon naa daara ji ma nekkoon. waaw fii ci jàmm gën waaye sëriñ ba li tax sawar ma daan xiiru fas la daan dóore <laughs> bokkoon naa ca ñu daan faraj faraje <laughs> waaw man de man de on ma jàngal la nga ndar Pa Chérif ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam bu baax a baax a baax Pa Chérif ma nga foofu lee ca Saint-Louis euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mi ci bleu sur du blanc. léegi nag lii nag da nga koy def ab règle muy may mujj nuyoo. yaay mujj nuyoo wax li la saf ma ma dem kuñ waxee lépp. waaw waaw. déedéet relance amul ci nuyoo. nuyoo ngeen. ah déedéet def leen ah, nànk nag def leen nànk ñu équilibré plateau bi nañ la bàyyi nga nuyoo parce que yow seetlu naa dara yow lu lay mën a yekk doo tontu. loolu moom sa force kon waxal li la saf. waaw ah. nuyoon. bétti xanaa moo yor lay communication sëñ Ba. ah déet mooy nuyoo parce man maay dispatché. moom mooy nuyoo yëpp yow kuy àtt a teg ci biir Dakar. non kat moom man Cheikh Baara bu ko kat waxul sax ku ma romb jox ma ñaari junni. non Assane la wax waaw non ma. maa nag nee na xam nga sànq dugg naa dajeeg yow nee na booy gën daal dajeeg yow. <laughs> gis nga montre bii papi ku ñuy wax papi moo ma jox. Ah. montre bi ab kii la àndal ab la xaw ma. Ah. mooy guide bi. non montre boo xam ne kay wax dëgg yàlla xam naa ne seer na ma xaw ma lu ñuy jar na ma xam naa ne. taw gi est or. ah nuru na ko de. ndax Dubaay la ko jëlee. nuru na ko nag te dafa am ab kii nu mu tuddati. soo ma waaw mooy gite livre la àndal montre nag man yàgg naa ma am montre mais bu am livre nag. gite la waaw bi nekk ci boîte bi. boobu nag bii moom xool ko nii. ayca léegi bii. waaw bii. Mbacke ñaan dégg nga waaw. tey nag caaya ji moom dama ko bàyyi ci gitt ñëwut caaya ji ñëwut. colgeeg mbaxane mi nag kati. dix ans nag daanaka solo ma pantalon ah Diop mbalak naa ma ba ma dem jël place bi soo xoolee. man de veste laay xaar defal ma ni tala rek may ma costume. tooñ nga ma xoolal bu may dox sànq nii damay defe ne. <laughs> ma ngi noonu tànn la waaw. Mhm. ayca mi ngi noonu waa ayca maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi seet tey nag am naa ku ma tudde doom aussi koo xam ne xaw ma ko mi ngi tudd Abdou Badji doom soxnaam tudd Awa Tamba fan yee ma woo ne ma sama soxna dafa am doom yow laa koy tudde léegi la ma woo ne ma tudd nañ ba pare waaw mi ngi Espagne soxnaam mi ngi Tëlimaam Jaara mhm. maa ngi koy jaar bu baax yàlla dund tam ndey amiin jaara ñu jaajëfal ko bu baax a baax rayati nga leen daal man daal maa ngi ci bële bi bële balan bii daal maa ngi ci vraiment ayca ñu dem euh, régie jëli ba kàddu mag ñi. ahan kañ mos naa ànd ak yéen am na jamono ju ngeen fi otesee sol seen i bu boobu jour boobu yéen laa ànd. otes ah léegi otes dégg bi ngeen otesee. Ah, loolu mooy saboté. amaat <laughs> ñu ñëw ci mag mu baax mag moo xamante ni keroog rek maa ngi ko fiy tudd. mi imaam Maodo Sylla radiyallahu taala mhm. di ñaanal Moustapha Diop jàmm di ko ñaanal euh, Pam Ndiaye ak Coro ñu koy bàyyi xel mhm. waaw surtout Coro mhm. waaw parce que boo yoree boo dee borom kër yor soxna di nga xam di nga am ñëwantu lu bari ci moom waaw kon yàlla na ko suñu borom génnee ci nattu gi ci tamu gaaw léegi ñu ñëw ci euh, Maodo Malick Sylla doon koo xam ne dafa marqué suñu époque maanaam époque maanaam koo xam ne yow bi ngay nekk Euh, tout tànk da ngay màgg ak moom da màgg ak moom ba bi mu fiy jógee bi mu fi jógee mu doon événement parce que dafa bettoon ñëpp parce que aussi tamit euh, bi mu fi jugee li ñëpp doon xalaat kan moo koy wutu maanaam question boobu dama dañ ko dañ ko doon posé lu bari mi ngi mel ne grand serigne de Dakar tamit maanaam ay question la yoo xam ne bu fi kilifa gi jógee rek ñëpp dañ koy posé pourtant xam nañ ni dinañ ko wutu mais ci dayoo ci taxawaay mais aussi tamit euh, ci wàllu xutba ak euh, présence euh, ci wàllu élégance ci solu ak euh, jëmm jeek waxin wi ni doon attirer nit moo tax tey ñu indi ko kon dañuy ànd ak bu dee noppi na ñu teewlu kàddu ki di El Hadji Modou Malick Sylla su demee nag ba su noon dikkee yaa ngi yàkkamti pour ñu jox la dossier nga atte ko pour rey ko pour toroxal ko pour gàcceel ko booba jaratoo jox atte yàlla ne na wala yajrimanakum sana'aanul qawmin ala an taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa kooku alquran la yàlla ko wax ñu war bàyyi xel ne ñetti mbir yooyu nga xam ne moom la ñu tudd su fekkee ne yiw na yiw wesaaroo ci réew mi suñ ko doxalee ni nu ko war a doxalee yiw wesaaroo ci réew mi noflaay yëpp dal di am jàmm am ku tëdd daal man nelaw waaye ñàkk doxum mbir yi nag dana tere nelaw nit dana tere nelaw nit yemul foofu mu wax ak magistrat yi ñu ñëw wax juge xaadi ñi mel na Maodo ne dañoo àtte wallahi yàlla ne wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli yàlla ko wax wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli soo dee àtte nit na nga àtte waaye sama xarit la ñoo bokk grand place dañ ma recommandé ak moom tax ngay jëng doo àttekat te it daa ko gis ëllëg ahkamul haakimiin kookoo di yàlla ñuy atte moo leen di atte ëllëg ku bàyyi sa xel ca loola nag ku bàyyi sa xel ca loola wallahi bu nit taxawee ci sa kanam nga di leen atte di nga leen atte dëgg ñu ngi noonu El Hadji Maodo Malick Sylla waaw doon imam grande mosquée bu Dakar sujet bi dafa mel na tey la parce que li mu jiital ci kàddoo mi ngi naan euh, waroo atte nit ki di ci jublu soxor pour jéem ko faagaagal bépp booy atte da nga war a atte dëgg te lépp loo fi atte tey suñu borom dina la ko attewaat ëllëg bi muy wax ni ay magistrat ñu ngi toog président de la république mi ngi toog waaw président mi ngi toog ay magistrat ñu ngi toog mu leen di wax nan ngeen war a doxalee ndaxte lépp loo leen fi jëf tey ci atte te waroo atte nit parce que danoo bokk grand place maanaam par parloo bi ci atte danoo bokk parti mais danga war a atte rek ci maandu waaye waroo defee ci wate taxas jëm ci benn boor maanaam ku ma am ndey te ku ma amul ndey léegi nag balaa may dëkk ci sujet bi ñu indi tey ak Maodo Malick Sylla ak taxawaay bi da ngay xam ne àdduna loo doonul taalibe mu doon sëriñam ndaxte ginnaaw jàngalekat bi mu doon jàng ba xam di jàngale mais aussi dafa nekkoon un communicant nekk à kon avant mi taxaw ci euh, bar wala bokk muy taxaw di xutba boobu moom communication am na lu mu ci xam parce que aussi tamit euh, des fois nga ni diw jàngul fekk dafa mënul communiquer maanaam mi ngi wax waaye la muy wax nan la koy waxee ak fan la ko war a waxee loolu aussi doon un problème léegi damay njëkkee ci Cheikh euh, Bara Ndiaye Cheikh Bara Imam Maodo Sylla ak ni mu waxee jëm ci justice ci jamono joo xam ne mu ngi jàkkaarloo woon ak kilifa yi nekkoon ci réew mi ci jamono jooju ci nguuru Abdou Diouf. waawaa waaw euh, di kontaan bu baax ci kàddu mag ñi di ci nuy li nuyu bu baax yaa Sayda Fatimata Say Ndir euh, suñu xel di dem ci moom bu baax euh, imaam Maoda ni mu waxe nii loolu mooy mooy mooy loo xamante ne actualité la mooy dëgg dëgg du du du yàqu du jeex du xewi boo xoolee tey jii li mu doon wax boo ko tegaatoon tey tey tey day mel ne Euh, suñ problème mu tey yi lay wax. loolu mooy tax nit booy wax rek maanaam bul bul xool barab bi ngay waxal waaye waxal ak jamono boo waxee ak jamono jamono du weddi say wax. Mm-hmm. Euh, ñoom Imaam Maodo nag plus que nag man li ma seetlu ci Sénégal plus que ñuy gën a sori suñu génération Cheikh Sida Hadji Malick ñoom ak sëñ Touba ñoom Baye Niass di gën a gis ne ñi ngi am ay manquement loolu moom mooy dëgg xeebu ñu ñu fi nekk nag. Mm-hmm. mais soo dee xool génération ñoom ñii. man mës naa dégg benn fatiha fatiha boo xam ne sëñ Babacar si moo ko jàng. Mm-hmm. biñ ma ko jeexee ci ma déglu ko ñu ne ma kii kan la dama ne Imam Maodo Sylla la. ki ma ko doon déglu loo ne ma déedéet sëñ Babacar la kon da ngay xam ne. Mm-hmm. ñoom dañoo amoon ab kii. léegi nag ñi nga xam ne ñoom sëñ Babacar Cheikh Sidaaji Malick ñi jaxasoo woon ak ñoom booy xool génération bële jàll mooy ñoom Sidi lemin ñas ñoom Iyane caam ñoom Imam Maodo Sylla xeet googu même ña doon théâtre sax ay niti la ñuy nekk. même ñi nga xam ne dañ doon théâtre dañ ay niti valeur la ñuy nekk même ña ca doon woy mhm. ay niti valeur la ñuy nekk même ña ca doon bëre ay niti valeur la ñuy nekk mhm. mais nag boo xoolee mi ngi mi ngi dañ nag vraiment parce que léegi da nga gis ñoo xam ne des na ci ñoom mais da nga gisaat ci beneen côté boo xam ne da ngay mën a wax ne euh, da ngay wax ana yaru mag ña loolu tamit day am mhm. surtout que nag suñ côté artistes yeeg yëpp boo xoolee même taaxuraan ña ko daan def sax teewut dañuy amaale culture mag magi magi réew mi loolu daal laa ci seetlu bu baax nag. Mhm. waaw. Sango. Euh, indi nga koo xam ne tey miinuma ko naam mais ay waxam mi ngi ci pénc mi ñu koy gis di ko bàyyi xel di ko taataan yaa ngi wax léegi li imaam bi di wax ak dëggu gi xam nga imaam moom du ay kàddoom lay wax day jottali. Mhm. ndax ballaxa ni walaw bi aaya kàddu yàlla gi muy jottali nag sëñ Abdul Ahad daana wax ni nettali waxi jàmbur. Mhm. jërul sol mbubb mu rëy. su ma juumul moom laa dégg Oustaz Alioune Sall di wax ni Serigne Abdoul Ahad Mbacké ko daan wax soo déggee lool na mbubb mu rey ma maanaam daraja maanaam ab daraja la ci la ci la ci la ci la ciy jublu ndax li ñu gis ci penc mi des fois da ngay poser question di laaj kiy wax ndax yàlla lay waxal wala ay waxi boppam lay wax li saa njoog naan sa waxi bopp la loolu des fois da koy gis ci nit kuy jàngale waaye Imam Maodo li mu jàngale nii daf may fàttali keroog ba sëriñ Abdoul Aziz si ak Dabbaax tiimee Lamine Gueye la su ma juumul 68 waaw ak kàddu yam fa yëkkati woon loolu la may fàttali ci jataay bii xutba bu mel ni nga mën ko xutba ci président boo xam ne mi ngi ànd ak ay généralam ànd ak ay ministre am ànd ak gouvernement am ñëw toog nga yëkkati kàddu yu mel ni yombul ki da xam ne yàlla lay waxal day jottali kàddu yàlla mhm. yàlla nag su xësee nekk sa kanam amul benn mbindeef bu war a rëy sa kanam ba mu teree laa wax dëggu yàlla moo tax xutbay léegi moom wax dëgg yàlla Sénégal dafa rafle ay xutbakat yaa ngi dégg ay son yoo xam ne jamono bi Covid bi di metti Sénégal yi ñu tëj jumaa yu bari jumaa yu ëpp yaakaar ci réew mi ñu leen rat ñu génnewaat benn son wu Sidy Lamine Niass muy wax ni tey jumaa yëpp démissionné nañ ñëpp seetaan nañ kenn ñemeetu la wax kàddu yàlla gi li nga xam ne moom moo xew ci réew mi mm-hmm. loolu nag bu jëmee ba àgg foofu euh, Omar ku ne na nga jàngal sa doom mu xam Mbàkke si la moo doon wax ni li la wut alal jaral na la ko wut sa diine jaral ba nga bañ a jël sa diine wékk ko benn waaye ni moom laay déglu waaye gis nga imaamu léegi du ma ne yëpp de imaamu léegi yu ci bare bari ku leen wékk sa diine toog di déglu ne yow laay déglu bu ëllëgee yomal xeyam boo demee di nga ko digaaleeg sa borom ndax waxala waxatuñ la yàlla waxatuñ la yonent seen bopp ñu ci bari lañ fi nekkal ñun ñuy tànn imaam balaa may jox saa est nekku ñooy juum parce que des fois jiite jiite julli ak jiite juma bokkul. mais gars yi tànnatuñu mais fii dañuy jàpp ni. tànnatuñu de mën naa jiite alors que juma yombul. tànnuñu sëñ Baara mi tey bu tabaxoon. jiite juma yombul bu tabaxoon juma. Hmm. day jëli benn waay bu nekkoon ca daaraam ñëw teg fa. Hmm. mbir yi noonu lay demee cest du du du waa koñ bay tànn léegi ki ñuy teg ci jumaa ji moo war a ragal yàlla moo war a xam ni lii muy jiite ñii muy jiite njabootu yàlla lañ mais te yow mi boo tabaxoon boo tabaxoon juma da ngay toog rek benn waaye ñëw sugur sugur ñëw jiite déedéet yaay xool koo jàpp ni kii dafa ragal yàlla wala dafa wala wala min alquran mhm. tey euh, exemple bi ma lay jox mhm. jumaay Tuubaa ki fay naafila bu dee doon nga topp euh, naafila gi mhm. ak am na naafila yu bari am solo mais da boo xoolee imaam boobu da ngay poser kii war naa jiite wala warut a jiite da ngay xam ndax kii imaam la wala du imaam xam nga doo ko laam-laamee parce que da xam ni même alxuraan ji muy tar yi dafay dugg ci xolam ba muy jooy ñaata jooy la jooy ci biir weeru koor yi nga xam ni kii dafa xam li muy wax imaam du lu ñuy tànn du lu waa waa koñ bi tànn da nit ki da koy yelloo jàng am critères yi ñuy tànnee imaam nga doon ko léegi nag boo ñëwee jàng ba doon imaam mat sëkk ci lépp li ñu la doyee nga ñëw ba pare jeng loolu mooy jàng jeng mais eh, imaam Maodo mi ngi fi indi en tout cas ñu ngi koy ñaanal njaboot gi fi des yàlla nañ dese barke bi yàlla na ko yàlla yërëmte jéggal ko en tout cas man miiluma ko mais doxin wi muy doxee la ñu soxla ci imam buy dox. waaw parce que bisu korite gi moom nekk fi woon comme li may wax sànq l'absent le plus présent TikTok beeg ñëpp dañ ko indiwaat même am na télé yoo xam ne sax xutbaam leen indiwaat teg. macha allah alors que ki doon wax lan fi waroon a teg. Mhm. waaw saa Ndiogou. waaw xam nga macha allah imam Maodo la xam nga déggee kàddu gi dafa neex quoi <coughs> mu nekk kàddu goo xamante ni gi bon ñun ñëpp bi ñu nekkee xale mhm. euh, boo tëbaskiwaan ba ci kii ba RTS teg li nga xamante ni bi moom la ñuy wax mhm. julli gi nga koy seetaan euh, sa xol day daal de sedd mu nekk loo xamante ni bi da nga daan <laughs> ragal yàlla mbokk yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ak topp yàlla di leen fàttali ni suñu xutba bii paase ñu ngi nekkoon ci ngëm nga gis ni da ngay doon këru maanaam euh, yi nga xamante ni bii mooy maanaam chaque jour mi ngi lay fàttali ragal yàlla ak topp yàlla xam nga euh, bu ñu demee ba tey mu daal di dellusiwaat nii euh, loolu dalay wan ne lu baax rek am solo tey yii xam naa ni imaam Maodo niñ ci bégee njabootam nii lañ ci bégee que ni tamit képp koo xamante ni kii yaa ngi jiite. war nga roy ci lu mel ni parce que lii du fay parce que gis nga dëgg-dëgg rek la gis nga àddina ku ne na def li mu war a def bu ku nekk defee li mu war a def rek problème du am. Mhm. parce que imaam defut lu tut li ko wax seetut pour plaire magistrat ya toog ak ki yëpp na leen wax kàddu yàlla gi li nga xamante ni bi mooy li sunu borom wax mooy li nga wax sànq ne yàlla nett li kii wu ñu sënk mais waxi sunu borom la ñuy wax na nga wax rek waxi sunu borom boo ko waxee nit ki même bu la ci meree. yow li nga wax mooy li yàlla wax comprendre nga li nga wax mooy li yàlla wax parce que dafa wax firi li suñu borom wax ci ni nga xam ni noonu la àttekat war a mel parce que tey dafa mel ni jamono jii la ñu gënoon a soxla sax discours bii nga xamante ni bi moom la imaam Maodo si la wax parce que jamono jii dañu soxla loolu defe naa tey bu fekkoonte ni li indiwaat imaam bi moo lay wan ne la rek nit ñi dese nañoo am satisfaction ci xutba bi nga xamante ni bi eh, amoon na Hmm. waaw xut bu doon am noonu nañ ci satisfaction xutba bii du ñëw waaw kon boog man dama jàpp ni ki nga xam ni kii tey moo nekk ca place am moo war a xoolaat ni mu nekkee hmm. na xoolaat toogaayam jéem a xoolaat ni nga xamante ni bii noonu la koy parce que gars yi dañ lay corriger ah parce que li Omar wax nga ni yenn télé yi tegaat nañ Imam Maodo la ñooñu dañ lay corriger di la wax ne la xam nañ donc lii nga war a doxalee boo ko doxalee wut ñu wan la ko ci pénc bi kon nag wax dëgg fa yàlla Euh, ñu ngi koy ñaanal sunu borom dolli ay leeram en tout cas euh, jubbantiwaat na daal mbir yi ran yi. Hmm. voilà kii nu <laughs> waaw Omar xam nga euh, depuis koo xamante ni jóge na fi depuis 2001. mu def 22 ans ci ren. donc ba tey ñu koy waxtaanee waat. ba tey ñu indi ay extrait yi nga xamante ni moo doon ay sermon yi mu doon def kon li mu wax dafa am solo mais je rappelle que ni kii mi ngi wax imam war ñu ko tànn nii xaw ma naka naka nag mais depuis que ndakaaru nekk ndakaaru la collectivité supérieure lébu ñoom ñooy tànn imam ratib bu Dakar ñoom ñoo koy tànn d'ailleurs ku dul lébu sax doo nekk defe naa ni imam imam ratib bu grande mosquée donc muy loo xamante ni aussi eh, ni ñuy tànnee ak yooyu ñun maîtriser wuñ ko waaye xam nañ ni Euh, tànnaay bi foofu lay jógee donc nit daal bu la yàlla tegee. nga ki wax mooy juum ba tey mën naa nekk waa parce que parce que parce que waa li nga wax noonu tamit lu mën a nekk la euh, ñoom dund juum parce que buñ lox bala ñu lay tànn man je crois que dinañ la xool xoolaat la ba nga doy leen ñu teg la dëgg la nag nit moom ay waxam da ciy am euh, erreur ça dépend nag ci jubluwaay bi mm. mais daal li ñuy ñaan mooy booy jiitee daal gën a la sensibiliser Euh, loolu da ciy baax. Mhm. Ah, waaw surtout nga xam ñi ngay waxal aussi parce que ku ne daa am mu bokk ku ne daa fu mu féete ku ne lu mu gëm te nit ñi tollawul niveau ci dégg-dégg mun nga jublu sax ci kàddu gi nii yow da nga bëgg a wax lu rafet wax lu lii mais nanga koy waxee dina tax nit ñi am ci déggin beneen kon di ñaanal rek El Hadj Maodo Sylla suñu borom yokk leeram te taas ñu ci barkeema ah. moo li saa di wax dañ ko fan woon maanaam maanaam boo julli jee yow ca jumaa koñ ba <laughs> yow da ngay ñëw jàpp RTS tiit waaw du li nii mm-hmm. di ko déglu baax a baax mm-hmm. di ko lii te pourtant man dama jàpp ni sax njariñ bi ko Abdou Diouf amaloon gëm naa ni sax ñu fi ne Macky amul leen njariñ boobu des fois ci personnalité nit ki la rek loolu tax wax ci mbooloo dafa jafe Matar Seck mbooloo doon na ko wax maanaam euh, lamine du balance waaye ku wax peese sa bopp mm-hmm. kaddu gi kon ñu euh, ngi nii kon di ko ñaanal di ñaanal ñëpp jàmm di jégul ñëpp nag waaw ajaratu d'accord merci beaucoup Omar Bun Khatab Gueye Alaaji kàddu gaa ngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbow ñu am mbégte di am kontante di del seeg yéen ci seen rubrique bu mag bi nga xam ni mooy pajum cosaan senegal di ko bàyyi xel ñu ciy ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu bari di wax ni ci la ñuy gindiku ginnaaw bi nga xam ni am na lu xew ci penc mi ñii di ko xaar ci wàllu actualité ak nan la jàngate li xew waaye tamit ñeneen ñi di ko déglu ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax pajum cosaan mu ci yëngu di ci defit lu am solo Cheikh Bara njaay boroom def gis ñi ngi lay nuyuwaat waaw aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmanirahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala fala tahlamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu Alaaji Sanjoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ñëpp ak képp ko ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu gudd fanta ak mbooleem këri diine yëpp ak xalifa général yi nekk ci biir réew mi yëpp di di nuyu sama sëriñ Cheikh Mouhamadoul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu sunu wayjur soxna May Mbàkke bintu Cheikh Sidil Mokhtar sëriñ Habib Diop ak sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Modou Aïssa Mbacke mu Cheikh Sidi Makhtar ak sëriñ Jili sëriñ Abdou Samad Mbacke mu Cheikh Sidi Makhtar ak sëriñ Saalihu ak sëriñ Abdou Latif ak mbooleem njabootuk sëriñ bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baax am na góoru euh, murit bu baax bu ñu may wax muy euh, Baye Modou Fall Guèye nekk caaro yi euh, am na quatre-vingt-dix ans yu topp dégg naa jeudi ba jeudi lay seetaan télé. Hmm. sama émission rek lay seetaan. Ah. benn doomam moo ma ko wax. maa ngi nuyu am na ku ñuy wax Adja Nene Fall tamit di madame Diop maa ngi ak madame Diop maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu Assis Fall ak Maako. Euh, am na ku ma tudde tamit ku ma woo sànq bi may ñëw fii ne ma dama laa tudde doom. Mm. mi ngi tudd Abdou Diatta ah, non Abdou Abdou Abdou Badji. bokkul ak Abdou Diatta bu Allemagne Abdou Badji la tudd soxnaam tudd Awa Tamba. Mm. nekk Caaroy euh, moom Abdou Badji moom ma nga Espagne. Euh, sànq la ma woo rek mosuma ko gis mosuma ko dégg téléphone. Mm. Euh, lu dul fan yàlla ma woo ma am naa doom danaa la tudde doom tey mu woo ma ne ma tudd nañ ko. Hmm. maa ngi koy ñaanal nag di ko seedeel ñëpp tamit ndax nit bu defee lu baax danga koy wax àdduna ba ñëpp yëg ko. Hmm. ñu ngi ci kontaan bu baax a baax. jaajëf waaw macha allah Cheikh Bara Ndiaye borom def gis li nga wax am na solo euh, di gërëm kooku nga xamante ni kii tuddee na la doom di wax ni loolu vraiment am na solo. Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara du ma sori sax fi ñu jóge léegi. muy euh, li nga xamante ni bii mooy li Omar doon wax rek ci wàll wi nga xam ni moom la ñuy wax wàllu xutba euh, xutba bi nga xamante ni bii imam Grande Mosquée ginnaaw bi mu ko amalee wër na dëkk bi booy yi di ko partager di ko tik TikTok fépp maanaam daal xutbaam bi euh, wër na réew mi. noo jàngatee yow li nga xamante ni bi moom la ñuy wax xutba bi nga xamante ni bi moom la imaamu grande mosquée bi xutba ak tamit euh, daal li nga xam ne xew na ci bis boobu waaw euh, di baaluwaat ñëpp àq rek ci korite gi ñu génn mm-hmm. di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor amiin nangul ñu suñuy nawaafi la nangul ñu laylatul xadar gi ak euh, mbooleem luñ ci def ci ay jaamu yàlla ak mbuurum koor mi ñu génne mm-hmm. ñaan ci yàlla réew mi am jàmm muy mbooleem ñi nekk ci réew mi ñuy opposé woo jiite réew meek siwil yi ak militaire yi ak képp ku fi nekk koo xamante ne way ñàkk yeeg way am yi jirim yeeg baayoo yeeg baadoole yeeg ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu sàmm leen defal ñu jàmm bañ fekkewaat déwén mm-hmm. bi jaay rasulullah julli gi nag xam nga bari na ay xutba yu bari lool mm-hmm. mais daf cee am yoo xam ne day ñëwaat dugg ci actualité yi parce que ñu ne grande mosquée kon da ngay wax ne grande imam mm-hmm. mooy xutba foofu waaw euh, ndax grande mosquée moom normalement grande imam a fa war a nekk. xutbaam nag nu mu mën a demee rek même bu waxoon ci lu mu mën a wax rek day nekk actualité. Hmm. léegi nag dafa wax moom moom moo war a nangu ne rek ay waxam actualité lay doon daal ndax grand imam la. Hmm. ndax imam mosquée yi bari nañ ci réew bi mais moom moo jiite grande mosquée kon moom mooy grande imam. Hmm. léegi nag xutbaam dafa am ay njàngat yu bari yu ci am. benn bi nag moom duma ko jàng dem du maanaam man damay jàpp ne loolu suñ problème la ci jàkka yi. mooy mooy booy booy julli julli it wala yu mel noonu xutba nekkul affaire wu jàng kese il faut nga jàng jamono jàng ñi ngay waxal loolu dafay bokk ci li nga tax nga mën a xutba bu dee nag suñ jàkka yi léegi dañoo am problème julli problème julli gu jaar yoon imaam yu baree bari jàkka yu bari surtout ndakaaru loolu nag problème bi koy def mooy da ngay gis fii koo xam ne ancien mbër ancien waykat ancien footballeur ancien nangam. Mhm. maanaam ba noppi nag bëgg ñëwaat toj toj toj maanaam toj baal bi. toj toj jàkka ji wala yu mel noonu parce que suñu imaam bii su ma juumut maanaam moom football kat la woon bu mag a mag a mag. a ah. waaw imaam Samb mi moom. footballeur waaw waaw bu laaj ko waa point footballeur bu mag la woon. footballeur mën a football sax. léegi nag toj kaa yi toj toj toj minbar bi nag mënut nekk moom loolu mooy tax boo ñëwee faaw faa yi day génn waaw non footballeur la woon. imaam <laughs> bi football kat imaam bi footballeur. Ah, waaw waaw la woon. Chabar laajal Paye Dakar yi. footballeur ah. bu mag bu siiw. Ah. dégg naa ñoom Sadio Mané ñëpp moo leen man waaw léegi nag toj kaa yi toj toj jàkka ji mënut a <laughs> loolu mooy problème bi. <laughs> deuxième point bi ci des mooy ci li mu wax man gis naa ci ñaari problème. bu njëkk bi mooy. Euh, boo bu fekkente ne maanaam arab yi ñooy wax kullu makaanin maqaal eh? maanaam bu fekkee ab da nekk ci benn ba jataay uh-huh. jataay bi li mu gën a soxla woo nga wax ko boo ko waxut eh? loo wax waxoo eh? maanaam bu fekkente ne yow mm-hmm. da ngay julli ajjuma yi booy yi nekk sàndagaak ñi nekk sànd njéeréeg yi nekk pérer seen ñooy ñëw di julli si ñooñu moom ñooy ñooy manifesté wu ñooy toj waxoo leen dara ba ba jullit it jot Macky Sall ànd ak Amadou Ba ak Antoine ñooñu moom tojuñu manifesté wuñu nga jàkkaarloog ñoom naa leen manifesté baaxut. mooy li ngay wax waxoo ko ci barabam. moom ñi muy waxal nekkuñ fa. te ñi mm. ñi muy ñi muy waxal ñooñu nekkuñ fa. te mm. ñi muy waxal ñii ñoom li ñuy leen waxal concerné wu leen. waaw parce que Macky Sall moom du yàgg ba manifesté wu Antoine du yàgg ba manifesté mm-hmm. kon jërul nga naan ko boo manifesté woo boo dee da perte. waaw mënoon na ko denc ba booy yi ñëw. Mm-hmm. mu jàkkaarloo am na lu ñu gënoon a soxla. waaw lu dul lu dul dul wax jooju. Ah. ku laaj bañ jox la doo def li nga war a def kon nee na Macky Sall defoo li nga war a def ndax Macky daa laaj bañ jox te moo ne ku laaj bañ jox ko rek doo def li nga war a def waaw waaw a def mm-hmm. bi ci des it mooy ku laaj bañ jox la doo def li nga war a def ba noppi daan ne jox leen ma ma jox leen ma ma yóbbu tiwaawoon mm-hmm. yóbbu tiwaawoon nag lu baax la waaye comme laaj baaxut rek mënoon ngaa bañ a laaj mm-hmm. waaw comme laaj ah, yëpp ay ay ay ay rëng-rëng la yoo xam ne moom gis naa ko ci Hmm. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah révélation bi nga xam ne moom nga indi noonu xam naa ni moom la Assane di wax révélation kon ci wàll woowu nga xam ne mooy wàllu euh, football bi loolu donc war na ñoo xam ndax attaquant de pointe la woon wala défense wala milieu Cheikh Bara hmm. dañuy ñëw ci beneen point jamono ji lii may dégg booy di wax naan réew mi comme lido maanaam ku wax rek ñu ne la taral noo gisee. convocation yeeg jàpp yu bari yi nga xamante ni bii sénégalais yi ñu ngi koy constaté ci jamono ji nekk nii noo gisee yëf yi ak lan nga jàpp di booy jubluwaayu yëf yooyu. waaw jàpp gu bari gi loolu moom dañ koy ñaawlu surtout que ci niñ ko féetalee wal fajiri mm-hmm. di ci Coro Mandela ak Moustapha Diop. Mm-hmm. ak Pape Ndiaye ma nga xam ne jàpp nañ ko. Mm-hmm. su ci jàllee Babacar Touré. su loolu jàllee itam ay ñoom Bilal Diatta ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne téye nañ leen. Ah. maanaam boo ko xoolee dëgg-dëgg réew mi dafa euh, maanaam mel ne euh, dañoo nekk ci euh, bëgg a noppaloo nit ñi man nag kiy jàpp di noppaloo nit ñi maa ngi koy laaj ba mu ko dalee def ak léegi na def bilan ba xam ñi muy noppaloo ku ci noppeegun. ku ci noppeegun waaw xam nga ñoom li leen dal mooy ko yor jaani kawus. jaani kawus. Mm. jub ay nit ñu seen ngàndaay bi ak ñuulaay bi ñu defee ne jaan la jóg di daw. ñu dem ba yàgg ñi nga jàpp nit ñaa ngi daw mm-hmm. ñu dem ba xam ne jaan ji ndeke kawsu la ñu taxaw tey nga jàpp ne ba léegi ñu ngi ragal mm-hmm. bu fekkee dañoo bëgg a noppiloo nit ñi wala ñu bëgg nit ñi wan na seeni gis-gis nañ mm-hmm. jël beneen méthode bu dul ay tëj kaso kaso kuñ fa tëj yàgg say nawlee fa daje hôpital ku fa dem yàgg say nawlee fa daje bàmmeel ku fa dem yàgg say nawlee fa daje amul ci lu jar nit gor di jaay njëgam loolu amul voilà kon ñoom loolu nañ ko xam bi ci des mooy ku mel ne coro ak Bassirou Diomaye Faye it metti na ma lool ba ci kanamu yàlla parce que ku gën a yaru ci réew mi Bassirou Diomaye dàq ko liggéey ëpp ko fulla mm-hmm. amu fi kon jàpp naa ne kaso dañ ko waroon a dencal ñu nanguwut a liggéey waaw ñi nga xam ne yaruwul waaye boo demee bay topp ñi liggéey te yaru di leen tëj mooy yaa ngi encouragé kaso mm-hmm. loolu noonu la demee mm-hmm. léegi nag bu dee Bassirou Diomaye moom ak ma coro coro nag Euh, dafa nekk jigéen joo xam ne dafa tollu jigéen yu wérut man su ma doon mooma nag du ma tal sama bopp sama doom laay tal hmm. fu ma tëjoon ci ngunu sax garaawul man danaa lijjanti ba sama doom judd parce que yëpp du dara voilà te kërte kërte jeeg stress bi am na loo mën a jur ci yaramam xam naa dina ma seetaan hmm. bul tal fi nga nekk talal talal sa doom hmm. voilà parce que mën nañ la mën nañ la téye mais euh, mënuñ téye sa esprit te yow yaa tuddee sa bopp Mandela Mandela nag boo ko tuddee sa bopp am na tur bu nekk day wuyu borom tur wu ne waaw Basirou Diomaye tamit moo am seesu parti am tudde ko Mamadou Dia Mamadou Dia tamit boo ko tuddee dafa am lu muy firi te foofu sax di ma may ma am lu ma la wax loo xam ne lu nuru baatin la te daanaka du ko ci lan fi ne Mamadou Dia waaw Mamadou Dia mhm. lu waxi dof nag Mamadou Dia mooy Sonko Mamadou Dia mooy Ousmane Sonko maanaam ah. Ousmane Sonko mooy Mamadou Dia Mamadou Dia mooy Nelson Mandela Mamadou Dia ak Nelson Mandela ñoo bokk benn bis buñ judd ñoo bokk bis benn bis bu ñu judd le 18 juillet lañ judd. Hmm? waaw benn bis ñoom ñaar Mamadou Dia le 18 juillet la judd. Hmm. Nelson la le 18 juillet la judd. Hmm. dégg nga. Sonko ak ñoom ñi ngi magantee ñetti fan parce que Sonko mi ngi judd le 15 juillet. lu Patrick mbaa mi ngi juddu le 2 juillet. kon donc da ngay gis ne weer woowu. waaw ñoom la wax ay euh, Capricorne. ñoom ay ay kii lañ ay ay révolutionnaire lañ loo xam ne saa bu ñu bokkee ci benn affaire bu bu ci dëgg nekkul rek ñoom hmm. loolu da leen di révolté hmm. boo ko xoolee waaw léegi nag dafa am lu baati ne loo xam ne euh, bis bu nekk ma ne ñu ngi ci ñu ngi ci apartheid hmm. du ci woon yegg mais dinaa leeral benn affaire gis nga Mamadou Dia <coughs> Mamadou Dia mi ngi juddu 18 juillet Nelson Mandela juddu 18 juillet waaw 62 lañ jàpp Nelson Mandela 62 lañ jàpp Mamadou ja bi Mamadou Dia génnee kaso at mi Mamadou Dia génnee kaso. at moom la Ousmane Sonko judd. Mm-hmm. dégg nga at moom la Ousmane Sonko judd. Mm-hmm. muy 74. Euh, la ah. Mamadou Dia génn kaso at moom la mu Ousmane Sonko gane àdduna Mamadou Dia mi ngi juddoo xombal Ousmane Sonko mi ngi juddoo xombal. Mm-hmm. Nelson Mandela dafa am 46 ans dafa passé 45 ans dugg 46 ans rek ñu jàpp ko kaso. waaw Ousmane Sonko dafa am quarante 45 ans bay du ba bay dugg 46 ans rek ñu jàpp ko. Nelson Mandela dafa nekk dañ ko jàpp rek biddiwam tàkk mu nekk ci biir kaso bi di xeex. Mhm. ba doon président ci biir kaso bi libéré boppam. Mhm. Nelson Mandela loolu la def dafa nekk ci biir kaso libéré boppam libéré ay nitam mais kenn libéré wu ko. Mhm. Ousmane Sonko dañ ko jàpp actuellement nii mi ngi ci kaso parce que ci biir réew mi lañ ko tëj mënu koo génn. kon ci biir kaso la nekk comme Nelson Mandela di xeex. dégg lu mu yàgg-yàgg nag la kii ne woon Mandela lu mu yàgg-yàgg dana daan Ousmane Sonko mooy libere boppam dégg nga. Mhm. libéré ay nitam te ci biir kaso bi lay faloo mooy mooy day nekk ci biir biir boo moytul sous contrôle su am bi mhm. mooy falu dindil ko boppam comme ni Mandela faloo dindi boppam ci ci jéng yi ñu ko jéngoon mhm. moo tax man la affaire bi apartheid la te li gën a garaaw mooy Nelson Mandela mi ngi faatu 2013 waaw Ousmane Sonko dugg ci politique 2014 maanaam bi Nelson Mandela bi Ousmane Sonko amee 40 ans ci la Nelson Mandela faatu. Mhm. comprendre nga li ma la wax. waaw maanaam Nelson Mandela dafa faatu 2013. Mhm. Ousmane Sonko am 40 ans ci 2014 dugg ci politique 2014. loolu lépp ay du hasard yoo xamante ne. Mhm. Euh, dafa jaar nii parce que biddiw. maanaam dafa nekk lu lu yéeme gis nga Ablaye Wade. Laurent euh, Laurent Gbagbo. waaw Yaya Jammeh. Khadafi. waaw Donald Trump. ñoom ñëpp entre le 25 mai. waaw bala 20 juin. ci lañ judd mooy ñi ñuy wooyee Simon. Ah. gis nga Donald Trump dafa dafa ñàkk nguur gi toog lànk bañ a dem bañ fekk fa déjati ko. waaw Laurent Gbagbo dafa ñàkk nguur gi lànk bañ a dem bañ déjati ko. waaw Yaya Jammeh dafa ñàkk nguur gi lànk bañ a dem bañ déjati ko. waaw Xaddaafi dañ ko ne jógal mu lànk bañ rey ko. waaw Ablaye Wade dafa jeexal lànk ne fi mu toog du fi jóg. waaw ba moyen yëpp jeex. muy doog a dem te boo xoolee ñoom ñëpp ku ci nekk. waaw bi nga demee. amaan nga problème ak yoon. Laurent Gbagbo dafa am problème ak yoon. waaw Yaya Jammeh am na problème yoon. Mhm. Donald Trump am na problème ak yoon. Mhm. Ablaye Wade. Mhm. parce que am na ko. parce que mujj na bi mu fi jógee comme àndaloon dem nga ci kaso bi. loolu loolu li ko def. du du ay as sabab yuñ sabab lu ñoom. mais biddiw la boo xoolee ko mel ne euh, octobre la euh, au fait boo añee juddu ci la Senghor juddu. boo xoolee ay nit yi diplomatie la ñu doon xoolal seen mbir ni mu niroo. li ma la wax ni noonu la demee. moo tax ñoom nañ muñ xam ne lii apartheid la. Macky sàll dafa am nu ko yàlla bindee. waaw la ci euh, euh, mois de décembre la juddu. Mhm. ci jant bi la jëlee. ci jant bi ci tàngoor lay nekk. boo xoolee mhm. àdduna moom xare dafa am. Mhm. mu doog a jël nguur gi dañoo xeex. mu jël nguur gi. bi mu ko yoree ba léegi boo xoolee toujours mi ngi xare. du taxaw fi mu ne nii day xare di xare ba ñàkkaat ko. moom biddiwoom xare la. xare voilà soo gisee nag problème di am mooy. Mhm. kii 18 juillet la 15 juillet la judd li may wax nag lu leer la loo xam ne comme neex vérifié la waaw Sonko 15 juillet la mi ngi judd ci biddiw ba mi ngi jële mhm. moom mi ngi jële ci safaraan safaraak ndox nag luñ daje lu mu yàgg-yàgg sawara wi day fay ndox mi ah. moo tax Macky li muy def nii sañu koo bañ a def day fay sawara ndox mi day fay sawara wi jant lu mu tàng-tàng saa buy taw jant bi doy problème mu tàngal dëkk bi waaw que jant ndox ak sawara buñ dajee mhm. Macky nag sagittaire la ci ci jant bi la jëlee waaw nii muy def nii di tëj tëj di tëj koo bañ a def ci biddiwam la day xare rek day xare ba daanu mënu ci mënu ci dara voilà moo tax xola mm. bu bu dee tëj ak tëj jeeg lépp garaawul waaye daal mm. li yàlla dogal jàmm mm-hmm. mënu ci dara ah. waaw jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye macha allah. leeral nga foofu loolu nag dama ko wax pour ñu nekk ci kaso bi. te mm. Ousmane Sonko tax ñu tëj leen fa. na xam ne apartheid la. waaw nii la mën a demee nii lay demee. waaw yàlla noppi na démb tey doog a ñëw. jërëjëf Cheikh Bara boroom borom def gis macha allah euh, jàngat bi am na solo euh, Cheikh hmm. bëggoon naa ñu waxtaan ci Idi Cag Cag maanaam Idi mi nga xam ni <coughs> euh, dem na kër Ousmane Sonko génn na wër na mi ngi layam layam yi li dàmboo doon wax layam layam yi fi mu doon idée ci ne. Hmm. di layam layam yi góos layam layam yi doon ñu naan gars génn nañ ñuy dugg nañ def nañ ñi noo jàngatee taxawaayu Idrissa Seck. mi nga xam ni gaa yi ngi koy tuddee comédie show nee nañ ci théâtre lañ nekk moom Macky Sall xam naa wiiri wiiri la théâtre ba war a tudd noo jàngatee li nga xamante ni bii mooy doxalinu Idrissa sekk ci jamono ji. waaw nekk nii Idrissa nag maanaam ba ma koy jàngat. dama njëkk a ñëw ci moom ci boppam. Mm-hmm. maanaam guddi yi mu toll la ma waxoon ne Macky day wër boppam may Idrissa ci wër boppam la toll. Idi day wër boppam boppam fii ne day wër boppam. Ah, boppam ma ko réer ba pare dafa maanaam dafa réer parce que boo xoolee day toog. Mm-hmm. buy wax. waaw day jékki-jékki nga mel ne Idi mu nekk ci pouvoir bay wax. Ah. ba mu yàgg mu mel ne Idi opposant mooy wax. dëgg la Idi candidat day wax. ba mu mm-hmm. yàgg Idi mu bëggul dara di wax. parce que ah. booy wax ba mu yàgg nga daan ne bu ngeen ma falee ak bu ngeen ma falut basta la wax xaw ma. Euh, ah, tampi tampi mooy yéen a xam. xam nga loolu moom candidat bu taxaw ak nit ñi ne bu ngeen ma falut yéen a xam loolu moom ka mooy ku doonut candidat koy wax kenn ne boo xoolee tamit dafa xas xaw a xas sénégalais yi ndax nee na sama yaay nee na ku ma ne nob naa la nga lànk ah, yaruñ la loolu boo xoolee da koo wëlbati rek mais ku ma wax fal ma nga lànk yaruñ la la ba ko wax sénégalais yi lay wax yooyu yëpp da nga ko ciy xool mhm. léegi nag wër na boppam ba àgg ci di laaj ne moom mooy leader de ma laaj na ko 2020 waaw 2020 bi nga ko doonee lu tax daawoo ko wax ne a nga 2020 daawu ko wax daawul wax ne mën a bu demee ba yàgg mu yëg ne doonatu ko ba naan mën a rek doonatu ko waaw man nag defe naa ne nit bu fekkeen sàggan nga ba mën a tudd mburóog mburóog soow ba naa ñëw Thiès ne poñse bi neex na waaw kon mooy ñam na poñse bi waaw poñ poñse nag moom ancien poñse mënta doon lu dul bool bu jeex bool bu jeex waaw poñse bu jeex poñse moom waaw poñse waaw mburóog soow waaw ancien soow bool bu jeex la mën a tudd bool bu jeex nag bari wax karang-karang Ah, ah, ah, waaw kon day karang la bool yi ngay gis bool boo gis defut dara karang karang ngay dégg idi nag fii ne bu bëggee wutu tur na tuddee boppam bool bu jeex mooy ku defoon mburóog soow ba defatu ko waaw moom fii ne mburóog soow mu bu jeex loolu bu tur bu baax la nee na nee na xottu bool xottu bool waaw waaw <laughs> xottu bool moo tax kalang kalang gi waaw xottu moom xam nga foo ko fekk kalang lang lang lang lang bool yi def yëpp ñu ngi ne déjj na tekk bool bi nga xam ne poñ sa la defoon ba mburóog soow ma jeex xottu bool a fay des di kalang langi nee na mi ngi dafa muus. Mhm. parce que mu ngi juddoo diggante muusante. waaw ak mbëkkante. mbëkkante mën na ko waaye fàtte nga ñoo wax fooy jaayee. Mhm. gël tàppe lay jaayee. gël tàppe gël. waaw marché tàppe gël gël. gël tàppe waaw moom léegi gël guy tàppe rek lay jaayee. Ah, waaw foofu la nekk fa la nekk léegi. waaw ci la nekk dafa fàtte wax fu muy jaayee. d'accord léegi nag. Mhm. nee na moom ah, dafa nu mu tuddati maanaam dafa dafa dafa dafa dafa démissionné. ay ministre am dem nañ. nangam nangam li ma taxoon a dugg di layal dugg ga. waaw mais Idrissa wax na lépp. Mhm. sëf nag mu jox ñu bilan. bilan waaw waaw mooy bi muy dugg daf na réew maa ngi bëgg a daanu. dafa nekk ci difficulté. Mhm. engagement lay def dugg. waaw du ñu jox bilan wu bi mu duggee. li mu def lam fa def. Mhm. lam taxawu ba réew mi daanu. dëgg la loolu waroon nañ ko wax. bilan bi war naa parce que war nañoo waxet mu fa jële ñaata la. te loolu bu ko bàyyee woon réew mi ndax loolu mënta téye réew ba du daanu. li mu fa jëlee parce que waaw réew moo xam ne day waaj a daanu ñu jox la porte josul jox la biste di la fay ngay jël. Mhm. maanaam kooku yaakaar naa bu réew mi daa léegi même ministre am yi mu wax dañoo bàyyi loolu naxasaale la. ah bon parce que ministre te xam nga ancien ancien conseil économique social dañ koy fay ba tey. ah bon wate woon nañ ko fi. Mm. même boo boo wàccee dañ lay fay salaire. ca Aminata Tall lañ ko wate woon. waaw day kon Idrissa day continuer di jël salaire am. Hmm. bu dee loi boobaa ngi dox. waaw ministre ñi wax dañoo bàyyi tamit daanaka bàyyiwul. ah bon parce que ministre boo bàyyee six mois après dañ lay fay say salaire. kon donc ñoom jatara fii ba fii ba décembre. waaw dañuy jël dañuy jël seen salaire. kon donc bàyyi gi moom poste bi du ko yëg. Ah. dégg nga foofu nag maa ngi gis euh, président mu jël post bi jatara yoroon. ak bi sare yoroon jox ko Amadou Ba. Hmm. mais yaakaar naa loolu. jëloon poste bi bu fekkoon Pape Malick Ndour sax moom ko way la ministre des jeunesse mhm. nga jël sport dooleel ko ko waaye xam naa loolu Macky Sall ñemewu ko mais man dama ko doon proposé dama ko doon proposé mu jël Abdoulaye Sow Abdoulaye Sow Abdoulaye Sow parce ministre boo ko mën a jox waaw bu football amee ministre booba day taxaw parce que moom li muy doxal ci football moo bari su ma nee ko mu cumulé ko bu ko mënul nga jox ko ministre sport parce que gis naa président mu ne dafa am lu laa ci laa laa ko bëggoon a proposé ci ñaar ñu bàyyi. mais en tout cas Idrissa dem na ba mu yàgg muy wax di wacc tamit. parce que nee na. Mhm. Mali population baa daaneel nguur gi ndax Covid. waaw Guinée population bi dañoo daaneel nguur ga ndax Covid. Mhm. ba pare population bi dañoo daaneel nguur gi waaye militaire yaa ko yor. Mhm. daan ne yi ñoo daaneel Burkina. Burkina population baa daaneel militaire yor ko Burkina. population ba daaneeluñ ko dañoo xëy rek. armée bi ñoo jotee ci seen biir nangu pouvoir bi. waaw yoonu. population ba nekku ci. gine guddi lañ yeew xëy suba ñu ne Doumbouya coup d'état na ba seen yoon nekku ci. Mm-hmm. Mali. Mm-hmm. Euh, Abdou euh, doomi IBK ji Abdou Karim Keita. Euh, moo dem jël ab xaalis di ko yàqate di ko yàqate ci réseaux sociaux yi. ba woote sabar askan wa mer. taxaw ne ko wàccal. Mm-hmm. nguur gi ñëw doo doo militaire yi doo ko ñëw jël ko maanaam wàccee wuñ IBK parce que affaire Covid. gisuma ci Afrique gii benn état boo xam ne Covid ko daaneel. Idrissa bu bëggee dugg na wax dama doon tukk waaye réew mi da doon waaj a daanoo Covid bi daaneel na réew meeg amul réew mu Covid bi daaneel bay daaneel Sénégal. Hmm. loolu moom noonu na ko xamee noonu. dégg nga bi ci des mu naan ay wate yàgg na ci réew mi en 1700 xaw ma lan wate nañ loolu tamit c'est faux. ah bon wate en 700 1790. waaw lañ ko njëkk a defar nii formuler ko tabax ko maanaam ci ci ñi ngi njëkk a wate ci àdduna. Hmm. en 1791. waaw lañ njëkk a wate. bu dee Sénégal ñu ngi fi njëkk a wote 1848 28 octobre. lañ njëkk a organiser fi ay wat ci Sénégal ci àdduna ci Sénégal lu jiitu loolu nit mës ta falu ci Sénégal parce que dañ maa wateel doolee daan fal. wala meen wala gaño waaw kon moom bu ñëwee toog di gëpp wax wax yoo xam ne ay wax di sànni la. Mhm. loolu tamit amul njëriñ. d'accord voilà. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah Cheikh Bara. bi ci des euh, nag mooy Idrissa tamit damaa jàpp ne. muy opposition bi yëpp dañoo nekk F24 léegi. Macky Sall soxlawaat na lu ruube opposition bi mu génnee ko. voilà ah, pour mu ruube pour mu ñëw ruube ko kese. it day ruube waaw. jërëjëf Cheikh Bara dañuy ñëw nag ci li nga xamante ni bi nag xew na ci kii bi président génn na ci korite gi. Hmm. bi mu génnee it euh, wax na def na benn interview bu yaatu ànd ci ki nga xamante ni kii mooy euh, sama naataango Assane Gueye mi nga xamante ni bi macha allah euh, man ak moom ñoo bokk corps bi nga xamante ni mooy corps de journaliste. man ak Assane Gueye bul di euh, Cheikh Bara noo gisee interview nga xam ni sama naataanga boobu di Assane Gueye amal na ko ak président de la république ci li nga xamante ni bii mooy génn bi nga xamante ni bii moom la président génn interview bi noo ko jàngatee macha allah. waaw interview bi. Mhm. damay wax ne gis naa président de la république. mu mhm. def interview ak El Hadj mbay Peex. El ci bisu julli yi El Hadj Assane Gueye laay wax. ah du mbay Peex kon. lu ko def mbay pex Assane Gueye nga ah, naan mbay pex ah, defoon ne mbay pex da ngay sabot la kon Assane Gueye na baal na woo mbay pex mu baaloo ko àq parce que ah, moom liggéeyu mbay pex la jël interview bi mënoon na ko bàyyee mbay pex hmm. xam nga dafa am loo xam ne journaliste ak ku muy toogal di def émission waaw ak géer ak géwal géwalam bu toog hmm. géer maanaam géwal bu toog ak géeram bokkut ah lu leen wutale booy déglu nag géwal ak géer seen waxtaan hmm. du nii bokku ci ni nga ko waxee jubut bokku ci dégguma li nga wax maanaam loo wax noonu la boo paree mu encaissé la rek moom ci la xelam di nekk. waaw Assane nag toogaayam ak Macky Sall moom. maanaam man journaliste bu fekkee danga nga cee génnee relance. Mhm. ak li ma la laaj tontu woo ma. ak yaa fi waxoon. maanaam lu des ci journaliste. Mhm. te Assane Gueye maanaam waxu fa li ma la wax tontu woo ma. relance ko néew ko yaa fi waxoon te Assane Gueye ko tàmm yaa fi waxoon la. Mhm. ñett yooyu nag boo ko génnee ci toog. waxtaan ak nit mu jeex. te Assane Gueye dafa def lu garaaw. muy lan mooy def ab interview. pare wut defaat maanaam ñaanop interview pour leeral interview bi nga doon interview loolu moo lay wax ne interview bi du interview ah. déet defal naa nga ne Assane Gueye <laughs> dafa def interview bi defub interview. <laughs> pare demaat ci télé bi wut foofu interview. wut interview pour leeral interview bi doon interview. <laughs> waaw pour leeral interview. waaw kon kay xam na ne moom problème am na. Euh. waaw parce que moom. Euh. maanaam Macky Sall dafa toog dëkk bi am lu fi xew. waaw mu njortu ne li fi xew Macky Sall la ko mën a leeral. mu dem toog ak moom Macky Sall toog pour leeral moom mu toog pour ñu leeral askan wi. ñun auditeurs yi ñu toog di déglu ngir mu leer. waaw Assane Gueye di laaj Macky Sall ay laaj. moom Assane Gueye wóor na ko ne lii Macky Sall yi tontu ak li muy laaj du benn te ñemewu ko wax déet. ah benn. Mhm. da ko ne kër Ousmane Sonko gi ñuy barricadé. barricadé barricadé. waaw buy wuy ji ñu koy sàkkal yoon wu mu jaar. waaw ak di toj otoom di ko gaase waaw loolu fan la tegu. waaw président xam nga lu ma ko tontu. xam nga lii la ko laaj. président na ko jamono fa toll. jamono fa am na France am na Amérique. Uh-huh. waaw am na France am na. ñaaray nekk Assane Gueye bu fekkee xam na ne amut France. Mm-hmm. amut Amérique. ba noppi mu bàyyi président ci biir. waaw loolu lu ci jublu. Mm-hmm. bu fekkee nag xamut ne loolu amut France amut Amérique. kon amul niveau wu toog foog foofu. Uh-huh. te Macky la ko ko tontu ne ko am na France am na Amérique France. Sarkozy ma ngay wuy ci. waaw kenn mësu ko wax oto bi ngay dugg kenn mësu ko wax kii ngay àndal kenn mësu ko wax yoon wi ngay jaar. Mhm. heure tel lañ la woo ba heure ba jotee mu wuy si mu jeex. Mhm. boo demee amerique waaw ancien président bi. Mhm. muy Donald Trump ma ngay wuy ji yoon. waaw kenn mësu ko wax oto bi ngay dugg kenn mësu ko wax kii ngay àndal kenn mësu ko wax fii ngay jaar kenn mësu ko wax ba heure bi ngay départ. en tout cas heure lañ ko jox bu yegsee yegsi na. Sénégal nag moom bu mas Ousmane Sonko waree wuy ji deux jours avant la ñuy tëj par waaw bu xëyee ñu ne ko doo ànd ak kii. waaw oto bii ngay dugg mbedd mii ngay jaar. waaw bu lànkee ñu forcer ko dóor koy ay lacrymogène mm-hmm. xeex ak moom pour wutal ko yoon wu muy jaar. Mm-hmm. président ne ko loolu am na Amérique mu ne ko amu fa. mu mm-hmm. mu toog ko xool. mais Assane Gueye lu tax yow président li ñuy def Sonko am na Amérique néewoo ko amu fa. waaw xam bàyyi ko ci biir. waaw nga ne ko. waaw yow Assane Gueye nga seet ba xam ne dëkk bi dafa am prisonnier politique. nga bëgg ci ay explication ci président. ne ko xam nga am na loo xam sax Assane Gueye la ñuy insulté quoi. parce que daf ko ne prisonnier politique yi. mu ne ko loolu waxu kasaw kasaw la amu fi prisonnier politique amu fi. Mhm. day mel ne Assane Gueye ko bëgg a laaj di ko laaj. waaw président dolli ci ne ko. waaw prisonnier politique mooy. Mhm. koo xam ne dañ laa jàpp ci délit de opinion d'opinion waaw. Mhm. nga xam ne da ngaa wax sa xalaat ñu jàpp la. léegi Assane Gueye moom. nee na ko amu fi. ne ko kenn ñu kenn ci deli délit d'opinion. moom xam na ne fa Fadilou Keïta dañ ko jàpp ci délit d'opinion. xam na ne. Bilal Diatta maire Kër ma Massar dañ ko jàpp ci délit d'opinion. Mhm. xam na ne El Malick Ndiaye dañ ko jàpp ci délit d'opinion. Mhm. xam na ne Basirou Diomaye Faye dañ leen a jàpp ci délit d'opinion. Mhm. waa léegi bi comme bi mu ko nii délit d'opinion la bu ñu ko jàppee ci délit d'opinion mooy prisonnier politique te délit d'opinion kuñ jàpp amu ci ñoom ñëpp dañ doon toj ji fi jàmbur ak yàq moo tax ñu jàpp leen. léegi Assane Gueye lu tax néewu ko lii am na fi. waaw président ko amu fi te moom xam na ne am na fi ba mu bàyyi ko ci biir. loolu tax muy leeral mu ne ko marché yi ñuy tere. Mhm. président ne ko marché bu ñuy tere amu fi. Ah, amu fi ne ko marché yi ñuy tere. waaw bu pacifique kenn du ko aaye ndax loolu sax daa baax ci wér gi yaram. Mhm. waaye comme moom wér gi yaram gi rek gu baaxaay gi la wax waaye waxut ne daa baax ci démocratie. Mhm. pourtant marché lu mu baax ci wér gi yaram gën koo baaxate ci démocratie réew mi. waaye moom nee na wér gi yaram ci la baax. mu ne waaye amul fi marché bu nu aaye. dégg nga. waaw nee na marché yi ñu aaye ku aaye woote marché yor say cocktail Molotov yor say ngànnaay. préfet bi da koy aaye. Assane Gueye moo la gën a xam ne amul benn préfet ci réew mi. waaw bu mas a bind ab ab ab ab ab ab këyit notifié ko. Mhm. daat ne mars bi aaye naa ko c'est parce que ay cocktail molotov. Mhm. wala sa parce que ngànnaay moom moo fa nekk. Mhm. danaan Touba bañ demee Touba dana ay signature. waaw fee mu ne sance BRT bi. fee mu ne daa ab foire bu fi am. fee mu ne daa am ñu njëkk a ñëw jël. maanaam lo ay lay. waaw mais mosuñoo notifié nit ne ko. ay ngànnaay tax ñu tere marché bi président nag nee na marché yi ñuy aaye waaw ay ngànnaay tax hmm. nañu génneel benn Assane Gueye loolu la doon jariñ nag ne ko amu fi waaw li nga wax noonu demeewul noonu nii la demee bu ko defee président indi yeneen lay waaw bi ci desit mooy hmm. président de la république waaw président de la république da toog di wax ak nit ñi nga yëg ne moom li muy wax hmm. maanaam wóowul nit ñi ci maanaam day buy wax ak yow da ngay yëg ne ci lim lay woo ni ko lu ngeen bokk waaye daa jàpp ne lu moom lay wax mm-hmm. bi ci desit mooy kuñ naan da ngay dem ak doo dem nga toog ba jug te waxoo waxi dem mm-hmm. waxoo waxi dem mm-hmm. xel ñaaw na ci waaw bi ci desit mooy waaw président de la république waaw dafa am lu garaaw lu mu def loo xam ne moom xam naa ne bu ma ko waxee war naa dàq ay conseil ah lu tax waaw mooy toog na ba jug waaw tuddul mbindu mi mbindu mi mbindum électoral mi te loolu mooy li gënoon a farataw ci digganteem ak sénégalais yi. mu ne leen kat inscription bi nii la demee wala mu joxe ci benn explication. Mm. gàtt naam gàttut ñu ngi bindu bindu mi nii la demee wala dem leen bindu ci wala dara. mais da mm. koo sappe carrément. jàpp naa ne nag devoir bi citoyen yi war a def. di la déglu nga am occasion boobu waxu leen nga dem bindu ji. Mm-hmm. loolu manque patriotisme la ba pare ragal nit ñi. Mm. bindu ji la xaw ma lu mu ciy ragal. Ah. bi ci desit mooy Macky Sall dafa war a ay conseil da ko war a def. ah ndax ñetti ñetti pôle yi la moo am ci réew mi. maanaam Sonko. waaw ñi muy àndal ñëpp a yeew. ñëpp a yeew. waaw xam ne njiit mënut a ñàkk ñu ne ko kaay jiite ñu. waaw Idrissa ñi muy àndal ñëpp moo leen gën a yeew moo tax mu leen di foyee <laughs> nga ma. waaw Macky Sall nag ñi muy àndal ñëpp ko gën a yeew. Ah? Macky moom ñi muy àndal ñëpp gën a yeew ah bon Sonko ñi muy àndal ñëpp a yeew ah. Idi ñi muy àndal ñëpp moo leen gën a yeew mhm. Macky nag ñi muy àndal ñëpp ko gën a yeew moo tax mu war a wut consens yu baax ah bon waaw mhm. bi ci desit waaw mooy nee na ñu ne ko takk yi dóoraate mu ne seen liggéey la ñuy def moom yoonam nekku ci loolu liggéeyu takk der yi la mais man mënumaa nangu nga nekk cim réew mhm. su su équipe nationale Sénégal demee ah. football yi ah. jëlee coupe def nañ si doone ñii dañ doon def seen liggéey sab kuba mm-hmm. takk der yi bu ñu demee def lu ñu wër sa def ne loolu moom saa yoon nekku ci seen jëfa ah. waaw loolu mën comme que coupe bi bu ñëwee ab kuba ba waaw jëyee juñ am ci réew mi te ab équipe defaat waaw jëyaa ma da ko war a leeral d'accord Macky nag bi ma koy seetaan daf maa fàttali benn émission ma ma sonn seetaan ci El Basir ah. président Soudan bu yàgg temps baa ngi jeex ëpp na fukki at waaw booba manifestation yu tàng dafa am ci réew mi waaw mu jël interview spécial waaw pour wan nit ñi ne man li ngeen di yëg yëguma ko li leen naqari naqariwu ma li leen faale faalewu ma ah. maanaam Macky Sall toogaay boobu la toog keroog ah d'accord waaw ba pare ñaari makki saal dafa am ci émission boobu muy ban ban biñ koy laaj ci troisième biñ kii troisième mandat hmm. tëj mi kër Sonko gi ñuy tëj hmm. maanaam da ngay gis Macky mu ñagas hmm. tontu yu dëgër waaw waaw waaye biñ ne soxna Marème bilan bi rek Macky dafa di commencé kay signe kay commencé lal ba sànq. Ah. maanaam loolu nag problème communication la mooy moom Macky nanguwul contradiction lu mu tuuti tuuti rek. da ngay gis da koy naqari. am na lu ma jaaxal nag. muy nag mooy Macky bi mu tëjul mu waaw maa ngi ñëw Macky Sall bi muy bi muy wax. Mhm. bi muy wax ci lim xamut mooy ñi nga xam ne ay nit ñi naan nangam nangam li ci penc mi. Mhm. da doon wax waaye bi ñu ko nee sa bilan maanaam da ko doon liir. Ah, man nag ku mokkalut sa bilan looy mokkal laa xamut. wa salaam. jërëjëf <laughs> da doon liir bilaa bi macha allah Assane xam naa war naa defaat yeneen juróom-ñetti émission ngir leeral émission bi nga xam ne moom la def. am na am joxeel programme bi temps jot na temps bi jot na Cheikh Bara. Cheikh Bara yow it looy ma mayoon boo ma mayoon benn minute rek daa am lu man lu ma naqari lu xorom. loolal damaa gis waa équipe xalaas bi nekk ci rajo ba. Hmm. di xas coro naan ñoom lu ñuy topp kaa laa xamul. saa njóogu xalaas boo ko génnee ci toppkaa lu ciy des waaw ci la dëkk Mamadou Mamène Ndiaye moom xamul ne moom toppkaa lay liggéeyee ah. ndooyu baan daan def toppkaa ba nekk maire <laughs> formé ko muy ñëw di toppkaa topp ah. xalaas ah. mooy boo toppee kaa fi kaa bi jeexe nga ne xalaas waaw kon moom na xam ne bu demee ba réew mi góor ñi mën a dem bay toppkaa ñi leen di fay ñu war a bàyyi jéggit ñu toppkaa waaw dëgg la waaw macha allah joxel programme bi. waaw te bul ko liir. wasalaam léegi nag euh, ñu ngi asalem 2. ginnaaw école Madieye Sall samedi ak dimaas foofu moom la ñuy nekk lundi. mooy ah. jour bi ñuy faj mbirum rab. Mhm. boo ñëwee bis booba dañ lay fajal rab. maanaam bu fekkee daf laa tëj wala lu mu la mën a teg loo xamante ne ay ay jafe-jafe la. Mhm. ñàkk doom ak ñàkk mën a wax ak lépp. Mhm. bu dee sam àll mardi bi ñu ngi tëngéej cité sëñ Mansour terminus su 48 ci wetu pharmacie bi. waaw boo fa ñëwee moom affaire sangatul njare ca ngaayu njare yi juróom-ñaari cangatu njare yi ak sangatu ubbikoog yooyu lañ fay def ak seet. Mhm. ci biddiw ak yu mel noonu ak seet daal ramloog yëpp loo soxla rek. waaw. Euh, jeudi ñi ngi asalem 2 ginnaaw école Madiaye Sall suba ci vendredi bi mhm. hémorroïde muy seere mhm. ballonnement estomac asthme tension diabète ngóora yooyu lañ fay faj ak wàllu sangat ak lépp lu nit soxla boo ñëwee tëngeej suba cité sëñ Mansour terminus su 48 bi foofa lañ koy defee li ñuy faj fii yëpp nag am nañ boutique Casamance numéro baa ngi noonu am nañ ko Touba wetu ko sëñ Bass Abdou Khadir ca Guédé mm-hmm. am nañ ko Mbour ca wetu Osan ba am na Thiès wetu kër Mbay Diouf boo ñëwee foofu ci yooyu yëpp numéro yaa ngi noonu ci suuf boo ci wootee dinañ la teg ciw yoon sukkuraan bu dee Dakar nag asalem 2 ginnaaw école Madiaye Sall wala cité sëñ Mansour terminus 48 Rufisque wasalaam jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah am na solo tey itam leer na ajaratu Betty Mboup euh, di fàttali numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def jërëjëf mais xam nga ni jël nga cinq minutes yow moomul. jéggalu non du xam nga ko. jéggalu waaw kon jéggalu. ah déggal nee na matu ko de. sama bi lay xaar ba alhamdulilah.